Éducation sur Cine TV. Santé sur Cine TV. L'actualité sur Cine TV. Politique sur Cine TV. Sport sur Cine TV. Religion sur Cine TV. Culture sur Cine TV. C'est un écrit par Cine TV. dellusiwaat nañ nag ci suñu euh, plateau bi nga xamante ne ni moom moo di plateau plateau verdict bi nga xamante ne muy waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum euh, politique euh, suñu émission bi nag wees ñu ngi dalaloon ki nga xamante ne moom moo di monsieur Meissa nekk nag jeune responsable politique fii ci diwaanu Fatick ni ngeen ko séenee noonu nag ci bande annonce bi tey ñi ngi dalal nag ndaanaan ñi ngi dalal koo xamante ne ni wax dëgg yàlla dootuñ ko présenté ci. politique ndax nag euh, Fatick yëpp ràññee nañ ko du ma ne Fatick waaye itam Sénégal yëpp ràññee ràññee nañ ko muy monsieur Amath Diouf bu ñu waxee Amath Diouf xelit na dem ci gibeer bu ñu waxee Amath Diouf xelit na dem ci son excellence monsieur Macky Sall nañ ci gën a waxtaan ci biir waxtaan gi euh, monsieur amaat ñu bàyyi la nga nuyu suñu mbokk internet yi. Euh, di wax ne c'est un plaisir pour moi de venir ici parce euh, que Sine TV suñu mhm. télé la mhm. ñun waa Fatick mhm. je crois que loolu moo tax euh, bu ñu invité dañuy sawar pour ñëw fi déjà ñun dañoo am dañoo am devoir pour ñëw di jàpp ci liggéey bi di participer ci animation télé bi mais aussi di xool yan possibilité lañ mën a am. pour mhm. jàppale leen télé bi jëm ci kanam parce que télé bi suñu télé la ñun waa Fatick ak tous les acteurs politiques. mais yëg-yëg bu mag nga am bi nga duggee Sine TV. waaw je suis très content bu ma duggee fii ndax euh, ki nga xam ne moo sànc mbir mi. muy mhm. euh, feu Ahmed Soxna ma ci profité di ko jaale waa Fatick. Mhm. di leen ko jaale di ko jaale képp ku yëngu ci média. Euh, yàlla yàlla jële ko fii ci ba muy ndaw. di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xaare àjjana si ressource ko am. di ñaan aussi euh, yéen ñi nga xam ne yéen la fi bàyyi. Mhm. ngeen euh, wéyal liggéey bi. Mhm. vraiment ba nga xam ne mission bi bi amoon ci mission bi. Mhm. ngeen fexe àggali ko ba yàlla def si jàmm. en ñun notre devoir c'est de vous soutenir de vous accompagner. et de vous assister. ci ci loolu la ñu nekk incha allah. incha euh, yaa nga koy def sax ak ki nga wax léegi muy Mouhamed Soxna. di ànd ak moom ci say activité suñu première question ak yow monsieur monsieur monsieur Amath Diouf moom mooy moom mooy li nga xamante ne moom moo di situation politique bi ci Sénégal. ndax li xel mun a la bon situation politique bi soo koy wax da nga koy diviser par ñaari pàcc. Mhm. benn bi mooy li xew au plan national ak li xew fii au niveau local. Mhm. donc bu ñu jëlee ci li xew au niveau national. Euh, c'est un peu compliqué parce que wax naa euh, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa jël euh, initiative à la veille de la campagne def un discours à la nation mhm. waxtaan ak gagné ñi lancer un message fort moy euh, politique euh, du xeex du xulloo du saagante mais na ñëpp nekk ci jamm def ay discours de paix ay discours yo xam du bot di xet def dara mhm. bu ken dem vers la violence na ñëpp nekk si jàmm ñu def campagne bu apaisée encadré par les forces de l'ordre ñëpp nek ci jamm ku mun dóor ku mun sa morom duma mhm. donc loolu nak euh, dama yaakaar ne dafa am ñuko ko dégg ak ñu ko déggul mhm. ñi ko déggul nag mun naa cee ciblé wa taxaw wa wa waa sa kàddu bi nga xam le maire de Dakar euh, bat Diaz est nek tête de liste bi euh, bon c'est un habitué des faits donc c'est un récidiviste par rapport à cas de violence mhm. L'imou def ñaaw te ñu ngi koy ñaawlu mhm. def mooy euh, Abbas Fall qui est son concurrent à la mairie de Dakar sinon à Dakar même a fait mu une forte délégation composée de jeunes très engagés de jeunes filles de jeunes garçons des grandes dames mu fait leen fa ak un mbooloo sàcc sen xaalis do leen ay paaka dem len ay jaasi pompe leen pompe def leen pompe à gaz. Mhm. donc mbir ma jaxaso mbir ma la demee. Mhm. te loolu nag bokkul ci politique. politique wax naa ko léegi discours bu apaisé la. Mhm. discours bu utile la ay actes yu fort la pour que les populations mun cee jëriñoo. donc loolu nak ce n'est pas le cas pour euh, la coalition. Euh, sàmm sa kàddu bi nga xamné ne Barth moo ñu ñaawlu loolu tay wax nak aussi euh, nayam fofu parce que aussi dëkk bi amna yoon té bu yoon deful dara aussi kuñ dóor ëllëg mu nga fayu té mhm. fay bu aman fay fayonte su amantee day da fay jaxaso day jaxaso mhm. bo ñëwee Fatick bi au niveau euh, local mhm. fi mom euh, je crois que euh, la situation a basculé vers le PASTEF pour pour des raisons que tout le monde connaît Mm. parce que ñi nga xam ne ñoo yoroon nguur gi. Mm. Euh, waa APR te moom bokkoon ci yaakaar naa ci la bokkoon. <laughs> ay waa APR gis naa leen léegi dañoo xaw a doy waar quoi seen situation dafa xaw a carabine trop quoi sur le plan politique. Ah réunion sax mënatuñ ko mënatuñ ko def. Mm-hmm. xamul lu xew nag mais mm-hmm. waa APR mënatuñ sax tenir une réunion mm-hmm. euh, gis naa leen yow yaay berse du sur ñu leen xamul lu ñu def. assemblée générale xamul lu mu doon. mais d' habitude man ce que je comprenais d' habitude ñun bu leen la veille euh, ñu doon andi suñuy chaise ak suñuy bâche ak suñuy euh, table yi ñu war a toog. Mm-hmm. def cérémonie maanaam logistique bi. Mm-hmm. Dakar la doon euh, ak ay camion mhm. mais cette fois ci li ñu constaté mooy benn auto bagage lañu gis ben auto bagage mu mhm. wàcc garage euh, Berge du Sine wàcc fa ñent ses xam nga ak juróomi table mhm. donc vraiment lool mooy wane né APR vraiment euh, naan na ndox daal kon da nga leen di jiin ñàkk ñàkk ñàkk compétence wala non dama xamné rek dama xamné man dama am sa discussion dama ko rouss sax parce que xam tax mo rouss moy parti bo xamné ne moi j'ai participé à sa création la personne ma fille j'ai vu naître et puis euh, grandi devant moi donc, euh, quand, quand, je vois la façon dont le parti fonctionne actuellement, euh, j'ai vraiment la chair de poule. Parce que vraiment,

tey sa vision là la c'est quoi. bon son vision c'est la vision du parti bi nga xamné ne fa parce que man. su mhm. engagé wu damay engagé wu ci parti bo xamné mhm. dafa am fu mu fu mu ak jëm. maintenant vision bi vision Pastef la vision Pastef c'est 2050 la c'est 2050 jotagul mais d'ici à 2050 on a un un, plan pour xamné un, master plan pour xamné day dem ba 2034 mais li gëna a nak moy d'ici à 2029, moy moy le plan euh, quinquennal. Mm-hmm. nga xamné ne 2029, inshallah, Sénégal dina am ay changements yu extraordinaires mm-hmm. dans dans tous les pôles parce que Sonko wax na ko par par rapport aux huit pôles déjà c'est ça son discours déjà de campagne. Mm-hmm. Fum mu dem ci pôles yi. li nga xamné ñom lañ nar def ci pôle yi moom mooy discours déjà fatik amna yu bari yu mu fi wax tey si tey bu ñu ko dégloo. wax na fi yu bari lu jëm ci wàllu xorom si. nan la ñu mën a transformer xorom si ba xorom si dootul nekk. Mhm. coono waa Fatick. bu mhm. xorom si coono la. Mhm. ndax ku nekk da ngay sa kër xorom si da koy yàq dugg ci miir yi. yàqal nit ñu seen liggéey ah, yàq ndox mi yàq lépp xorom si da ko yàq. donc moo tax xorom si au lieu muy nekk jafe-jafe ci ñun dañ koy jéem a ba mu nekk ay ay ay atu wala ay yoo xam ne dina mën a am njëriñ waa dëkk bi sur le plan. économique mhm. et puis day tax aussi bu ñu ko defee transformé ko defar ay iodation mhm. defar ay transformation ay emballage mun a exporter tout ça day tax dëkk bi mun a am euh, te loolu usine moo koy def mhm. donc day tax dëkk bi mun a am liggéey nañu di xëy di wàcc moom activité parce que à Fatick vous le savez je le sais tout le monde le sait mais ay promesses là, rek ñu wax il y a pas d'activité économique kenn mun fee jëlee dara mënoo xëy dem outil ba am parce que amoo sax foo jublu te loolu waral xam nga ko xam mais parce que ni jeunesse la président en parce que lui qui décide quoi. fu donc moom wax naa ko ci sama benn conférence de presse ma ne moom su fekkoonte ne am na intention defar Fatick réellement dina ko defar ndax dama ko comparé ak Diamniadio mhm. qui était une forêt classée y avait rien du tout mhm. ay garab fa nekkoon ay guy ay baobab ay bukki ay ay ay du ngeen xamul mhm. mais moom bi mu bëggee defar Diamniadio def na fa ay milliards yu bare bare bare bare def fa ay logements sociaux def fa ay stade def fa université bu cher ah def fa ay stade def fa arena defu lepp li nga xam ne war na fa am ay industries yu bëri ñu ngi jam mhm. donc tout ça c'est l'événement de Macky Sall donc c'est fekkoon ne il avait envie de faire de Fatick une ville moderne comme ni nga mhm. ko dans les années 2000. Mhm. kon Fatick changé na bu yàgg malheureusement c'est pas le cas il n'a pas voulu transformer Fatick il a voulu transformer d'autres villes euh, dont jam donc ñun Fatick nañ nañ nañu nañu nañu gëm suñu bopp gëm yalla te xam am nañ suñu dom bo xam def na fi fukki at ak ñaar ci nguur gi li ñu bëggoon am defaluñu ko léegi nag dañuy jéem gëm yalla gëm suñu bopp jéem gëm né Bassirou Diomaye jaxar fay président bu bees bi Sénégal mm-hmm. nekk jeune comme ñun mm-hmm. bokk génération mm-hmm. am yaakaar ci mom né dina mëna a dëkk bi ba nga xamné niñ ko bëggé won ci Macky Sall te amuñu ko nañu ñu jappalé mais loolu la Sonko wax léegi par ah. rapport ak la situation économique euh ci loolu euh, duñ joggé jógeegum fofu ci euh, son excellence monsieur Macky Sall euh, yow nga ci kenn ki nga est-ce que yéen a ngi problème problème c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. c'est que mm-hmm. ñun suñu devoir mooy def ay constat euh, mm-hmm. remonté ko mais mënuñoo weñ loxo président Sall je rappelle mon cas j'étais conseiller technique à la mm-hmm. présidence de la République mais man li ma mën mooy bind. Mhm. ne président voici bu xool li ma constaté Fatick ma bind ko jox ko président nekkul ku ñuy gis tous les jours. Mhm. un ministre conseiller un conseil technique. ñooñu c'est les membres du cabinet du président de la République mais c'est pas il n'est est pas dit que ñooñu il voit le président tous les jours ku la ko wax waxul deug mhm. il ne voit pas le président tous les jours mën nga nak am occasion. nga ànd ak mom dem tukki voyager nga joxul enveloppe mën nga am occasion euh, nga toog ak mom dans son bureau une fois deux fois dans l'année. mën nga am occasion aussi mu soxla la woo la ngeen toog mbala mbala mu mbala mu am rencontre bu dem boo xam ne soxla la fa nga ànd mhm. yooyu la quoi mhm. mbala mu am réunion de cabinet nga toog fekke mhm. joxe sa proposition Fatick boo xoolee Fatick waay boo xoolee amul sax benn lieu de divertissement yow xoolal Fatick rek jël sa temps nga xool Fatick Fatick waay boo gis day mer di matu di fépp di matu di mer di xam nga tàngoor bi boo ci boole ñàkk boole ci amoo foo xëy boole ci amoo mais sa xol bu neex amul sax un lieu de divertissement pour Fatick amul Fatick y a même pas de jardin public le minimum parce que quand je parle de lieu de divertissement je parle d'autre chose mais jardin public sax amu il y a rien qui puisse épanouir les Fatickois pour une seule xol de féex de sedd koo ci gis moo ngi màttu di mer di fépp di di comme non mais c'est extraordinaire ce que nous vivons mm-hmm. et tout ça c'est à cause de notre grand frère Macky Sall qui a laissé notre ville comme ça en l'état lool moy deug te deug yalla yàlla bëgg kon do joxoñ kon kon do joxoñ baramu touma ñi fi nekkoon ko ci mel ne Matar Ba mi ngi Cheikh Kanté mi ngi fi woon euh, Thérèse mi ngi nous situation. parce que si le président Macky qui décide. Mm-hmm. je donne un seul exemple. Mm-hmm. Euh, ndaw si un euh, mm-hmm. hein, projet pour euh, le développement des villes la modernisation des villes mais ce ko a man président Macky Sall man Promoville pour moderniser les villes Fatick mhm. c'est une ville qui doit être modernisée moom bu ko un def ko naan tabaxal au moins 18 kilomètres de route à l'intérieur de Fatick tabaxal école yële ne ñu ngi daanu classe yaa ngi nu yaa ngi daanu ko demal estaat mais Fatick amul sax les les les jeunes amul sax fu ñu mais Fatick ne peut même pas recevoir l'équipe nationale de football après 12 ans d'exercice de xam nga a? ñu bëri dañoo xamul carrément. Mhm. le contenu d'un pouvoir quelqu'un qui est au pouvoir. Mhm. un président de la République avec tout ce qui l'entoure ses capacités ses possibilités Fatik mënul am sax stade boo xam accueillir l'équipe nationale c'est impossible Fatik amul wax naa un lieu d'épanouissement Fatik amul usine boo xam ne di nga fa xëy gontu we am weccet dem sa kër jox dépense mhm. ak ni dëkk bi méttee añ reer ndékki nga xam ne amul congé

pourquoi Fatik est resté en l'état après 12 ans d'exercice en tout cas, quelqu'un comme moi, mhm. j'avais espoir. Avec, avec l'événement de Macky Sall, Fatik, mhm. mhm. day mmh. une ville moderne. Ça, c'était ma conviction avec ces majuscules. te yàgg nga di a koy wax itam yàgg naa di ko ko wax man moom ku ma xam. ku ma xam. xanaa nga wax lu neex. mais man ku ma xam. xam ne yàgg naa ko koo sabañ naan ko yow da ngaa war a dëkk bi loolu moom yàgg naa ko wax ku ko wax xanaa ku ma ku ne amaat moom def na ko neex mais man yàgg naa présenté ko Fatick dafa war a changer mhm. on doit faire de Fatick une ville moderne ñun dañoo soxla li nit ñi soxla mhm. li nit ñi am mhm. waaye euh, kii booy est-ce que Fatick gëmoo ne Fatick waroon naa mën a abriter stade Abdoulaye bi nekk jam ñaajo su Fatick tey bu fekkoonte ne ñun ñoo am stade bi nekk jëm ñaajo forcément euh, des étrangers viendront à Fatick investir des hôtels parce que stade fu am bu toll noonu dafay footballer ay ay ay match yu mag équipe bi mag dañ fay ñëw kon ay investisseurs day ñëw tabax Fatick ay hôtel Radisson Fatick mun a développé am ñeneen ñu ñëw tabax à côté ay ay ay supermarché yu mag Fatick mun a am leneen nit ñi mun a dund def ñoom pour ñoom dañu jàpp Fatick daal c'est village boo xam ne mhm. nit ñi bëgguñ dara quoi nit ñi nit ñi bëgguñ dara yeewu dem marché yëg sa saret mbaam def sa loolu gars yi bëgg noonu nekkuñ ci yooyu les gens dañoo bëgg a développé comme les autres grandes villes mhm. mais moom loolu la ñu jàppe woon mhm. def nañu li ñu def pendant que at ñaar muñ gagné. Mhm. parce que je rappelle qu'il n'a jamais perdu d'élection malgré tout ce qu'il a fait les Faticois sont restés fidèles et loyaux engagés déterminés à ses côtés. Mhm. depuis son avènement. il n'a mhm. jamais perdu les élections à parce que nous, nous, moi je suis un grand frère pour une politique de vie ne peut pas mais on a attendu on a attendu jusqu'à la mort avion au revoir dem affaire bi jeex. ok Euh, mu ngi noonu nag euh, monsieur Amath Diouf euh, dégg ngeen ko nag li mu li mu li mu yëkkati ci ay ci ay kàddu jëmale ko nag ci maa ngi ko sax xanaa ñi fi tegoon la nee na ma déedéet son excellence monsieur Macky Sall daal wax dëgg yàlla moom lañ teg daal baaraamu baaraamu baaraamu tuuma bi yëpp daal ne Fatick bu sooxee moom moo tax mu sooxee tey ki nga xamante ne moom moo di Sonko premier ministre tey duggoon na tey ci biir dëkk bi dégg nga discours am. discours très clair et Eh, d'abord ci li mu wax ci responsable politique yi jàngat bi lan la ban responsable politique yu yu fa waaw fii maanaam tey ni fi nekk ni fi sàmp comme ku ci mel ni matar mooy ni ma non non non waxu fa waxu fa lu extraordinaire ci ñooñu c' pas il n' pas dit que man j' là du début à la fin. waxu fa lu extraordinaire responsable naka nga jàngatee. man discours li man li ma jàng du ma jàng li muy wax ci nit ñi man lu ma jàng. mooy li wax ci dëkk bi. Hmm. nee na dëkk moom sax avant moo wax. Mhm. la ko gars yi booy yu ko ne ko Fatick. Mhm. amul dara amuñu liggéey. Mhm. fii ñu fii ñu taxaw ne ci benn solution. gis nga ni mu ñaawee nii. mais ah ñu ne ko moo dàq ci Fatick xam nga loolu dafa ñaaw. booy dañu ko ne benn solution li muy ñaaw li muy ñaaw ñaaw yëpp moo dàq ci Fatick. mu ne ah bon ñu ne ko waaw mu ne leen ak lan booy da ko amuñu liggéey. amuñu xëy amuñu gontu Fatick amul usine amul fekk kenn di xëy. boobu nag la ci la ko fekk kàddu gi. wax di wax. bay joxe ay propositions yi nga mhm. état du Sénégal décidé par rapport à à cette ville centre là. Mhm. li ñu def ci ci centre bi. Mhm. donc muy waxna ko légui côté xorom bi. waxna ko légui muy côté tourisme bi. ak ndox mi waxna ci. ak yeneen ak yeneen ci. donc la wara retenir ci lim wax. vraiment il a de l'ambition pour Fatik. ambition bo ki théoriquement.

tey ni ñuy meree Matar Ba ni wala ni ñuy meree cinquante ñu lay meree noonu parce que ci équipe bi nga bokkoon. waaw man xam nga man li ma war la woon def naa ko. Mm. position yi ma nekkoon. parce que mm. nguur aussi dafa am ay pàcc ay pàcc. Mm. man fi ma nekkoon di fa njëkk a liggéey muy ASP. dama fa waroon def naa ko. yow maa ngi yow ñu bokk koñ. yow xam nga ne koñ bi ku fi nekk ASP maa fa dugal. Mm-hmm. donc man li mënoon def naa ko. mooy recruter naa le maximum de jeunes yi nga xam ne ñii dañ doon euh, nekk ci koñ bi defuñu dara ñii liggéey ay jànq ci kër yi. ñii di ñii di euh, ñiy jóge armée amuñu liggéey. di mhm. ci garab gi naan ataaya. Mhm. ñiy jàng ba pare am seen diplôme amuñu ñu man ñooñu mhm. ñëpp fexe naa ba recensé leen dugal leen ci ASP. nga jàppale leen actuellement jàppale naa yoo xam ne dugal naa euh, fay liggéey. ak feneen ak feneen yoo xam ne jàppale naa ñu ay bourse dem jàng. am na sax ay boy yoo xam ne yóbbu naa leen Istanbul au moment où je yu bëri yoo xam ne grâce à moi. ils sont partis à Istanbul. kon de seen jàng. ba am na sax ñoo xam ne ñu ngi liggéey kon man li moo mënoon def def naa ko man kenn mu maa reproché dara parce que mësuma nekk directeur général. Mhm. suma nekk ministre mësuma gérer xaalisu jàmbur. man liggéey laa amoon di ko liggéey fi may liggéey ma am ne am fay responsabilité administrative di ko liggéey dem ay possibilité mun a def li may def. Mhm. ba tey jii may wax yow euh, maa ngi port Dakar. fa mhm. liggéey. kon loolu man ci laa nekk nekk ba ci leneen man li ma mënoon def yem ca def naa ko ca ba ma ko mënee ak ca na ma ci yem man personne mhm. ne peut me que utaloo lii wala defaloo ma lee nga jox lee joxoo ko parce que man dénkut ma dara mhm. mhm. gi jeexee noonu laa ci yem man dama wax naa ko waxati ko bokk ma ci ñi nga xam ne dañoo bénéficié wu ci œuvre Macky Sall yi moo tax ba mu jeex tàkk ñu dem mais mais wu man amoon lu may bénéficié wu ci ci Macky man Macky dama ko gëmoon di ko jàppale parce que amoo ci bi am dara mooy am dara mooy leen en am dara moom mooy comme supposons euh ken xamula woon ñaari nit ak ñetti nit parce que tay qu'on la vérité Moussa Amadou mm. euh tay ñaar ak ñett tay buñ la ràññee tay ba jibe nek sa ginaaw c'est grâce à son excellence Moussa Macky Sall. non jibe bi nga xam ba ma koy def Macky Sall yëgu ko. waaw mais tay amna na tolluwaay wala kattan bo am attends attends je t'explique. Mm. man euh, j'ai commencé à faire de la politique en 98 vingt dix huit donc maanaam mom ba muy ñëw Fatick di bokk. Mm. ci la bokk tay tey. Euh, 2014, mm -hmm. la création d'un mouvement du PASSEF Judo en 2014. Mm -hmm. Donc, PASSEF, nous avons validé pratiquement au, mois de janvier 2014. 2014-2015, mhm. je crois bien. Man, euh, j'ai créé mon mouvement avec mes amis, mes frères. Nous créons ce mouvement en 2014, le 1er mars, je me rappelle très bien, à l'UNDSS. Donc, Lolo, je vais je suis un train de temps pour Je vais faire un de temps pour donc mu xam ko ñu ciy liggéey mu ñuy jàppale ñu def suñu mobilisation d'envergure soo li may wax nii nag ku dugg ci internet bi. di ko gis tapé GBR. Mhm. tu vas voir des mobilisations extraordinaires yoo xam ne ministres yi ñu fi nekkoon sax wala ay ñeneen ñu fi nekkoon. Mhm. mënuñ ko def. Mhm. parce que ñun dañ koy def avec euh, beaucoup de euh, professionnalisme politique. donc ñun suñu mobilisation xajul ci liggéey def nii. dañ ko lu ñu mën la di ko def. donc duñ ci mën a quoi. donc def nañ fi mobilisation extraordinaire te ñëpp a ci seen bët kenn mu koy di. di liggéeyal Macky Sall di ko jàppale. suñ ko attaqué ñu défendre ko andi des arguments convaincants. Mhm. suñ suñ ko waree dajaleel ay mbooloo ñu dajaleel ko ko suñ ko waree taxaw ñu taxaw ko. loolu yàgg na ci. Mhm. Mhm. donc kon ñun ñun am na loo xam ne ñoo ko defal suñu bopp. moom nag duñ na jàppale wuñu waaw jàppale nañu parce que reconnaître na li ñuy def ba nga xam ne nga parfois daan nañu dox ay mission yoo xam ne. moom la concerné. kon du ma du ma du ma du ma fëkk jëf ci loolu. donc muy France muy Chine muy dëkk yu bëri dem nañ fa. pour dox ay mission yo xamné ça concerne le parti paire. kon kay defal na la dara parce que man du ko mm. defal dara dama nekkoon mm. superviseur ci parti bi mm. nekk commissaire politique ci parti bi di dox ay mission liggéeyal ko avant lii di am parti bi daan liggéeyal du question li ma dox man lu may lekk wala lu ma di sama poste mm-hmm. mais je travaillais pour la mise en place de la paire au niveau national et au niveau international mm-hmm. wax naa ko léegi APR mm-hmm. deux euh, kañ 2012 mars 2012 le mois de mai 2013, mhm. je suis le premier jeune à diriger la délégation de la paix en Chine avec le Parti communiste chinois. Donc j'ai été le chef de la délégation du parti pendant 15 jours. donc loolu maa ko def. Mhm. donc ak yeneen ak yeneen yoo xam ne def nañ ko ay mission yoo xam ne mënuñ ko wax ci ci rajo wala ñu ko wax ci télé. Mhm. kon loolu liggéeyal parti bi la mais nekkatoon looy liggéey di ko sa poche. mais buñ la defal na dara man def dara taxumaa jóg xam nga man li ma taxoon a jóg. li ma taxoon a jóg mooy Fatick bokk ñu ñu am bac jógee fii dem jàngi Dakar xam mel. ñu yaakaaroon ne bu ñu yàlla dimbale ñuy xeex ba jàppale suñu mag xeexal ko bi nekkee étudiant xeexal ko ba ñu paree jàng xeexal ba mu nekkee opposition xeexal ko ba mu créé partem xeexal ko ba mu gañee nekk nguur gi dañu yaakaaroon ne bu ci accès fukki at ak ñaar duñu fa àgg te dëkk bi changé wul mel ni war a mel mhm. mais tey ji guy meew bu fa demee ba tey mhm. la la la benn pëloon toog suul di jaay meew suuf mhm. donc amul dara lu changé dëkk 2012 ba léegi y' a de changement extraordinaire. Mhm. Nos amis qui avaient voyagé, je, je, lance, je parle de Omar Ndiaye, un ami qui est aux États-Unis. Mais quand il est revenu de Fatigue, mais les mêmes routes, les mêmes, les mêmes, euh, le même décor, rien n'a changé. Il m'a dit que rien n'a changé chez lui. Ah, ben, il a raison. Dans la change, oui. Mhm. C'est aussi, il y a Mais quest changé, le change, je Fatick dara changé wu mais inauguré ngeen fi ay usine biscuit loolu fu mu toll. waaw loolu c' pas c'est pas c'est pas c'est pas Macky Sall. ça c'est euh, le, le, maire de Fatick mm-hmm. et sa mairie mm-hmm. donc yoy amoon fi ak yenen sax. ay mhm. ay cekk si nit yëpp amoon fi. Mhm. donc mais ñom lool ñom la ko xamono xamono yoy yoy am suivi parce à l'époque je me rappelle j'étais conseiller municipal. Mhm. Euh, mais je me rappelle pas de la suite parce que après ci la ci lañ jéxal ñu pare ci xamu fu mu mais loolu aussi amoon fi. kenn xamu fu mu voilà d'accord euh am nak euh, lo xamantene ni bon dañ ko souligner manam tay euh dugg nga tay ci parti Pastef euh, ci jour bi nga xamantene ni tay mom nga dugg tay amna ce discours que le discours vraiment comme bu marqué population bi yëpp la. Mm. Euh, nga wax ci yu am solo hein. euh, tamit nga tiré ci ay mais peut-être bon ay parce que invité fi ay nit ci plateau la euh, monsieur Macky Sall poste ah, monsieur amadou

loolu ñu yaakaar ne dama ko am dama ko defal amul donc man dama fa bàyyi woon du ay defal. d'accord dama fa bàyyi woon mooy Fatick nan la ñuy def bu Fatick jëm kanam. jëm kanam te Fatick bougé wul loolu mooy li ma gën a métti. Mhm. beneen bi aussi c'est c'est c'est c'est c'est c'est le côté politique. Mhm. le côté politique mooy boo nekkee ci partie bokk ko ak ay nit. Mhm. nga am le même niveau d'engagement wala lu ko ëpp. nga am. les les mêmes convictions wala lu ko -hmm. à chaque fois bu ñuy joxe ay cër ñu jox ko même nit ñi la à côté wala ñu bàyyi ñeneen à côté. lan moo waral loolu. parce que loolu la kenn mënta comprendre ci parti politique. Mhm. parce que mënoo nek mooy ñoy waxal xamné nañ seen bopp. Mhm. ñoy waxal moy la la case du politique qui euh, mhm. et la tête de liste de coalition de la coalition Takku tumba Diakhaté. xana biram Faye Tumba dis j'ai dit Toumba Diakité. Ah, Tumba Tumba, Tumba, C'est la tête de liste de la hum. coalition Wallou Sénégal. D'accord. La case de tout petit, elle est sur la liste nationale. Donc, nous, nous, nous, nous, à chaque fois, on les responsabilise par c'est des militants qualifiés de la paire. qui ont une légitimité, un mbolo, un diplôme, un xam-xam, engagement. Pourquoi président Macky Sall, à chaque fois que de besoin, il responsabilise les mêmes personnes bàyyi ñeneen ñi loolu tegu ko fenn loolu politique. sa xalaat loolu lam pour lan la pour lan dafa ànd ak partage. Mhm. dafa ànd ak ak ak yéene sa sa sa bopp. ma mhm. ne yéene sa morom léegi yéene sa bopp. Mhm. te loolu nag vraiment amu fi comme ñoom ils sont dans la capo la caporalisation des responsabilités. mais gars yi bàyyi leen ko. au moment où je te parle mais pratiquement la paire euh, amul amatul ku fa des instant bi la l'APR amatul responsable de valeur bu fa nekk. Ah, ñëpp may sa may may sa mu nga fa. xam nga xam nga may sa Mayakor je ne peux pas parler de may sa Mayakor tu sais que may sa Mayakor c'est euh, mu nga fa may mon frère c'est mon jumeau. je ne hmm. peux pas parler de li ma bëgg wax mooy. Mm-hmm. Euh, ñi nga xam ne ñoo fa nekk nii. Mm-hmm. ñoom dañ faa nekk rek parce que mënuñ faa ñàkk ba ñu nekk. te li ku may dégg. xam APR xam histoire bi xam nañ ñafa nek mënuñ fa hmm. ñàkk baña nek il faut ñu nek fa ndax ndax ndax euh, li di a li mo war lé donc ñi may dégg xam nañ li may wax. mais ñoom mënuñ nañ def ni comme yow. ni nga non mënuñ def comme man. ndax la il peut pas faire comme moi parce que moi je suis indépendant. Hmm. libre et autonome. Hmm. dans mes actes et dans mes dires man ken contrôle mo je suis libre man yàlla mo dimbalé man passé sax ba ma ci war a bokk du léegi dafa yag man ba ma waree baye Macky Sall. yàgg na mais wax ko dit, mhm. li dafa mhm. bari. Mhm. comme nag affaire bi nous l'avons accompagné jusqu'à terme. il a pris ses valises il est parti au Maroc avec sa famille. Ah, man laissez-moi ma liberté politique. c'est ce que j'ai dit à la RFM quand ils m'ont appelé euh, avant-hier en direct sur l'émission. Ils m'ont posé la même question je suis libre de choisir un parti politique qui répond à mes convictions. Et c'est le PASTEF que j'ai vu comme parti. Je suis libre de Hein? gëm je suis très fier de Pastef. parce que dama gis euh, la façon dont il travaille. Mhm. parce que à l'époque bu avons mhm. dem élection. Mhm. xaalis bari ngay wër à gauche di may à droite di jox militant yi ñuy jël nax fee avons ay sabar mais Pastef je prends mon argent et je cotise dans le comme tout le monde tout le monde connaît mhm. Et ça, c'est une nous l'occasion de, féliciter le coordinateur euh, de la commune, euh, monsieur M. Cheikh Bité, qui du reste est en train de faire une coordination extraordinaire. Mhm. Et je, je, félicite également le président euh, Pape John de la commission communication et son adjoint Bédignan. Mhm. pour le travail accompli qu'ils sont, sont en train de faire donc, dans, cette commission. Donc, l'imbo actuellement, nous avons fait un dans la participation active individuellement parlant. Ku nek da nga ëkk 100 000 francs, 1 000 francs, 150 000, 300 000, 400 000, 500 000, 25 000, 10 000, bam bari mom lañu liggéey. Donc ken xaarul dara ci parti bi, au contraire, mhm. ya jël a xaalis di ko def ci parti bi. Mhm. Loolu amul fen. Mhm. APR day croiser bala def millions de sa poste jaar des choses rambe bekkay au lieu nga jox ko li faire. ko jox donc donc kon kon Pastef. Ah ah. li est une nouvelle euh, vision wala une nouvelle façon de faire de la politique. te mhm. loolu vraiment lu ñu propager à l'échelle africaine. parce que li vraiment lu doy waar la lu ex vraiment je suis très content des méthodes et des pratiques. de Pastef kon kon da nga jàpp ne euh, li Ousmane Sonko réussir barke démb foofu ci arena ba euh, ku ñëw indi 1000 francs wala cotisation loolu ñi nekk Fatick mënuñ ko. mais loolu lañ def. ñoom Birame Faye ak mënuñ ko parce que woote nañu récemment fii ci berge bi. mais déglu li ma la woote woote ci berge bi. waaw <laughs> bu ma retal la waaye parce que ah. booy man xoolal. ah ñoom woote nañu woote nañu ci berge bi. woote ci berge boo xam dégg naa ko sax moom Tumba Tumba Jakite dégg naa ko mu naan euh, transhumant yi xamu a attaqué. man ki nga man ki nga tuddee noonu man laa bëgg a xam. Tumba Jakite c'est le la tête de liste de la coalition takk wàllu Sénégal donc bu fekkee xamoon nu tudd kooku moom yow yow la ak ñeneen ñu koy dégg mais dama Tumba.

ay gilas mhm. Fimela Diofior. foofu yëpp passer moo ko gañe woon ci présidentielle bi. Mhm. dama lay jox rek dama jox le tableau pour comprendre. Mhm. et pour que ceux qui m'écoutent je vais vous li le wax lan la. fuy takk wàllu takk wàllu jaar ba gañe la la laa man Djilass. Diofior. Fimela yëpp Pastef moo ko gañe woon présidentielle Diofior on avait raflé tous les bureaux de vote sans exception gis nga lu la wax. Mhm. faut faire d'abord. Mhm. Tategin, Amadou Ba AMC le maire. le candidat titulaire de Pastef avec Tataguine monsieur mhm. Cheikh Faye que je félicite au passage. un grand monsieur vraiment. ak kan nga ñëw nga ñëw ñaaxaar euh, ñaaxaar moom ñoom xalaatuñu sax am fa dara. Bicol. c'est partagé parce que mon ami Moïse de Amadou Ba il est là-bas. Pastef est là-bas ñoom aussi dégg naa ñu donc foofu c'est partagé nga dem. Euh, jaxaw duñ fa jaar. Mm-hmm. duñ jaar jaxaw. jawle de même. Mm-hmm. jawle jawle debout moo fa nekk un mouvement jawle debout qui est géré par un ami euh, Babou Diouf nga xam ne euh, tout jawle est derrière lui. Mm-hmm. donc entre autres communes entre autres localité de Fatick amul fenn fu ñu mun a jaar ba gagné. donc moo tax ma ne la ñii Fatick commune moom je ne parle pas commune parce que Fatick commune. tous les responsables sérieux de l'APR ont quitté le navire Nous dem nañu rejoindre le PASTEF qui est un grand parti un parti qui euh, vraiment lu attire les gens. Moi, il y a le discours de Ousmane Sonko qui frappe. il y a le discours de Ousmane Sonko qui frappe. que qui est réalisable, vraiment c'est réalisable te donc nous ci ba Fatick incha allah ñu am ci yaakaar ne d'ici peu Fatick dina mën a avancer jëm kanam. Euh, kon daal sa naataangoo yi nga xamante ne yéen a nekkoon euh, APR noo ko tuddee sax Pierre nan euh, Diakité xaw ma. Tumba Diakité Tumba Diakité. ak ñoom Thérèse Faye ñoom ñëpp nañ xam ne Amath Diouf kon mi ngi ci seen kanam pour baaraleel na la route. non non mais ñoom xam nañ ñoom sax ñoom dans leur fort intérêt dëggoo mën a la. Hmm. la case de petit de Diarikh. Hmm. Ah, moom elle plus intelligente que Tumba. tu hmm. mom dégg naa sax ci beu beuy mom la ñu tête de liste euh, départementale mais elle a complètement refusé xana xamone le président Macky Sall. il ne peut pas gagner ça il le sait dans son fort intérieur il sait que il ne peut pas gagner. il va faire des efforts. Mhm. des efforts pour pour pour pour pour pour pour euh, meubler les choses quoi mais il ne peut pas gagner. Mhm. parce que Fatik beaucoup de quartiers quartier par quartier les 13 quartiers de Fatik, quartier par quartier nga jël ko nga ñi amuñ jaar am deux voix. Mhm.

ci parti bi Patar boo demee Patar euh, l'inspecteur de du travail la il a quitté le parti également mu ngi ci mhm. kon gars yi fan la ñuy jël ba gagné waa waa Pastef laa bëgg mhm. gisuma ko. Mhm. te ñi quitté yëpp nag fekkoon dañoo quitté croisé les bras ñu ne waaw mais dañoo quitté ñëw Pastef. maître Bassirou Sakho maître Assakho aussi a rejoint le Pastef. Sandéné a quitté son parti le Rewmi il a rejoint le Pastef. Bédi Niang a quitté son parti le PRP il a rejoint le Pastef. Il fan gars gens di jaar compte non tenu de l'existence de PASSEF, c'est des jeunes de valeur et des jeunes très dynamiques et je lance euh, je euh, profite de l'occasion pour remercier les jeunes de PASSEF, GPS euh, mhm. mhm. Gisna, naa forte mobilisation bi le président Ousmane Soko. Gisna aussi jigéen Nindef, Gisna mag vraiment PASSEF, c'est un parti très bien structuré très bien organisé et très bien très dynamique dans la participation active des militants C'est ce nga Mhm. kenn xaarul dara ci président bi kenn xaarul dara ci kenn ku nekk da ngay sa doole def ci pour mbir mi dox dans les règles de l'art donc maa ngi leen di bu baax di leen remercier c'est un grand parti te yéex naa ci dugg te dinaa ci liggéey ba ñu xam ne liggéey naa ci d'accord euh, kon dégg ngeen ko monsieur Amath Diouf ne leen moom dina liggéeyal Pastef ba nga xamante ba ñëpp xam ne euh, liggéeyal na ko maanaam lu raw lu mu liggéeyal euh, son excellence monsieur Macky Sall ci wàllum investiture yi moom mu tànn ki nga xamante ne fii ci Fatick sax laay wax Euh, monsieur Birame Faye ak euh, Thérèse Faye euh, maanaam ñooñu nga xamante ne nii lu ñëw rek Macky Sall ñoom lay jël jiital moom dafa ñàkk ku koo xamante ne nii tey am na mbagg yu mun a jàkkaarloo ak waa Pastef moom la ñàkk wala parce que boobu yaa nga foot pourquoi pas xëccul ku mel ni amaa Diouf tey nga xamante ne jeunes yi miin nañ ko. waaw dama lay dama lay wax bi affaire wax naa la ne la majeure partie des frustrés de l'APR. Hmm. li ko waral mooy. tànneef bobu toujours les mêmes personnes qui même les mêmes visages l'homme mom gars yi d'accord déjà même les Fatigués nga ne ils ne font pas de la politique hmm. ils ont dit que non basta cette fois-ci nous ne voterons pas la liste de Macky Sall déjà Macky Sall hmm. ci mo dégoûté les Fatigués en termes politiques ken do ko jàppale même su tànnoon sax ko xamné moy mooy sax gars yi gars yi ñoo décidé wul pour appeler Macky Sall parce que dañoo sonn ci jàppale ni ko xamné ne wuñu wala bëgg il n'est pas dans les dispositions des Fatigués.

loolu la ñuy ñaan yàlla rattrapé ko ak Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye mhm. ci cinq ans yi ñu jëm te gëm naa ne mhm. cinq ans yi ñu jëm Fatick dina am tuuti changement au départ bañ sentir ne am na lu fi changé parce que li ñu yaakaaroon ci suñu doom defaluñu ko mhm. dañ ko war a yaakaar ci doomu jàmbur loolu loolu la ñu yàlla nattu euh, mais sonn bi nga sonn ci ci ci ci ci ci APR liggéey bu métti bi nga liggéey ci APR tey boo demee ba ci urne ba euh, di tànn di tànn ba gis euh, bulletin kii bu APR nga dem ba ca ngañ bàcc ba sànni leneen lu nokk rek APR doo ci am benn yëg-yëgu xol bu yëg-yëgu xol xol bu jeex tuuti maanaam liggéey bi nga xamante ak sonn bi ci sonn le sentiment ne fait pas la politique mm. xam nga dama am sànq ñu mën a limal yëpp ne la dañoo quitté APR mm. ak fàttali naa la limal Mame Adama Ndour Mame Adama Ndour donc mais yow ni nga mel ak APR est-ce que ñee parce que waaw waaw waaw nga wax mm-hmm. wax naa léegi na l'APR sama fii mm-hmm. léegi mu def ma ne la euh, dafa loo xam ne il faut ñu ñu ñu ñu Nous, électeurs. Fatick ñi mm. voté commune pratiquement c'est 22 000, 23 000, électeurs mm-hmm. donc nous voté c'est pratiquement 2011. la mm-hmm. la coalition Sénégal su voix à Fatick commune mm-hmm. nga parce que mënul avez parce que des gens qui peinent à se réunir des gens qui peinent à monter un comité électoral communal des gens qui peinent à tenir une assemblée générale sérieuse je mm. crois que ces gens-là, aucun fait sérieux ne doit voter pour eux. Man, c'est l'appel que je lance et je continue de le lancer. Que les fatigues se ressaisissent, que nous savons il y a une nouvelle dynamique, il y a une nouvelle vision. Mënatuñ ko yaakaar ci Macky Sall. Macky c'est notre plus grosse déception politique. Mhm. à mhm. parce que c'est un espoir il faut évaporer, dafa effriter. wu effrité lu ñu yaakaaroon Bécaye mhm. munoo am mag boo bokkal ndek baa ngeen bokk kër mhm. mu tekki yàlla may ko mu tekki nekk ci ay mbir nekk am nekk douanier am xaalis bu bari mhm. mu bàyyi seen kër ay sàkket wala wala ay ay ay ay yu ngeen xamul koy mere da koy mere da nga koy mere loolu moo ñu dal ci Macky Sall dañu dafa nekk dañ koo gunge mu am li mu am jaar fi jaar yëpp euh, mais foog nga leeral tamit ne euh, monsieur Amath Diouf yàgg nay yàgg nay yàgg nay Euh, juwaatloo ak ay kàddu euh, son excellence monsieur Macky Sall parce que troisième mandat bi bi mu fi doon woote yow bokkoon nga ci ñi taxaw bañ ko. waaw merci yow sax yow sax yaa ngi suivre parce que déjà. Mhm. loolu ça montre nettement que mhm. dama ko bi ma nekkee sax APR dama doon wax li nga ne d'accord ma ci. doo ko fi am. loolu bokkoon na sax li li tax euh, ça ça c'était aussi un autre point. Mhm. dama ko doon troisième mandat doo ko am te soo ñëwee Fatick. je serai ton premier adversaire ça je l'avais dit à l'époque mhm. donc mon nekkul de a commencé di wax wax mhm. donc parce que tout simplement on a attendu donc il est question de reprendre le même processus de voter le président Macky ken kenn du ko voter parce que un président il ne peut pas dire que day un ñu ñu du ñëw man ay récemment ma jàpp quoi mhm. fan lay Macky Sall il n'ose même pas venir au Sénégal il ne viendra jamais au Sénégal. <laughs> Ah, lambara non non d'autres fi ah, parce que ah, Macky Sall c'est un président qui est intelligent c'est un homme intelligent. il mm-hmm. sait ce qu'il a fait il sait ce qu'il attend il ne reviendra pas au Sénégal d'un seul coup déjà euh, il y a quelques heures. Mm-hmm. son retour au Sénégal. Mm-hmm. ne fait pas encore euh, honneur du jour n'est pas encore à l'ordre du jour. C'est ça mhm. qu'il a dit. Mhm. Exactement les mots. Mon retour au Sénégal n'est pas encore à l'ordre du jour. Mhm. Donc, moi, je vais faire un communiqué, je vais faire une annonce pour montrer que je suis donc nekkagul sax qui registre résistance. Il n'y a ñëw te du ñëw. donc qui ku yaakaar ne n'y a pas ngi waaj Il n'y a pas sa bopp même il est là toujours il passe tout son temps à appeler les gens par WhatsApp. Mhm. Euh, pour lancer des messages il va s'arrêter par WhatsApp donc c'est un candidat de WhatsApp donc je crois que c'est ça. mais il y a des procédures parce que tu es ba tu na WhatsApp appel vidéo wax ak ay ça ne veut rien dire l'appel WhatsApp de Macky n'a pas d'impact sur le choix ou la volonté des Faticois les Faticois sont déterminés à voter contre Macky les Faticois sont déterminés à voter pour Ousmane Sonko. les Faticois sont déterminés à voter pour PASTEF. d'accord et euh, léegi nag ci wàllum euh, ralliement yi xam naa fa la ñuy kii euh, ñu bëri gis ne waa yi ñoom ñi ngi daw di dem ci PASTEF mais est-ce que newul daw làkkatu ci ginnaaw ki yor yaa di dóoree. waaw mais dóoree day fekk nga def dara. waaw xam nga ku deful dara wax naa léegi man sama cas man amoo problème. Mm. man mosuma yor ndomb tànk bu am. xaalis yow moom yow moom sa mbir. man yoruma yëfu kenn. Mm. man yoruma nekk ma directeur général nekk ma ministre. C'était un conseil technique ordinaire du président Macky dans son cabinet. Hmm. et ça s'arrête là. donc je me demee ma jël sama décision def li nga yaakaar ne mu gën ci man. Hmm. def de ko. Hmm. même si par ailleurs j'ai reçu quelques euh, quelques attaques à gauche à droite. mais ça c'est inhérent à la chose politique Ce n'est pas grave. mais il est clair que nous sommes ñoo ëpp ñi C'est ce que je

ñun ku ñu xam-xam ne du ñu dugg dara à moitié lépp lu ñu dugg dañ ci dugg avec conviction te te wax naa ko waxati ko on va prouver devant tous les Faticois que suñu ñëw bu ñu ñëw Pastef am na lu mu andi mooy benn apport. Mm. te wax naa ko waxati ko na ko ñëpp dégg na ko ñëpp bàyyi xel. Mm. le bureau numéro 3 de Macky Sall au CM Thierno Modou Sall man dinaa ko battre dinaa gagner le bureau de vote de Macky Sall. Ah, ça c'est un engagement. clair boo xam ne gëm mm. naa ne après élection yi war nañ ko war nañ ko waxat. Mhm. voilà euh, monsieur Ama Diouf euh, nee na nag euh, fi nga xamante moom moo nekk bureau numéro trois ci CM Thierno Mamadou Sall fi nga xamante ne ni son excellence monsieur Macky Sall fa lay voté da ko fay dóor da ko fay da ko fay da ko fay dóor dóor yi métti métti métti métti monsieur Ama Diouf nag moom moo wax loolu noonu fu ñuy tàggatoo suñu dernière question moom mooy population bi vraiment dañoo jooyo jooyo jooyo jooyo jooyo jooyo ba sonn jamono yi ngay nekk APR ma nga jóge APR ñëw Pastef Euh, ñàkkut son ex kii euh, son excellence euh, monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye dina la xëcc tabb la taf la xëcc la yow yow di nga defar dëkk bi amaana mais avant loolu boo génnee gis dëkk bi lëndëm lan ngay dénk waa mairie bu Fatick. non waa mairie je crois que ñoom may dégg. waaw te lii ngay wax ni yàgg naa ko wax. Mhm. parce que maa ngi ñoom du ñu réeroo dañuy waxtaan tout temps. Mhm. Euh, parce que li am ci dëkk bi nag vraiment wax ko ku ko waxul nag moom da ngaa da ngaa da ngaa da ngaa soit da wax lu neex. Mhm. mais dëkk bi lëndëm na euh, bëri na ay yoo doy na war. Mhm. Euh, déjà barki démb sax maa ngi comment maa ngi féliciter la commission jeune. Mhm. parce que gis naa barki démb ñu déployé wu avec le service de jeunes. pompé dëkk bi. donc ça c'est mais dëkk bi dafa war a am lumière. parce que la lumière dafa am solo ci dëkk. Mhm. parce que boo amul sax dara amoo boo amul dara dugg sa poche sax. Mhm. au moins nga am foo jaar sax doxantu. Mhm. donc dëkk bi lëndëm na lëndëm goo xam ne béykat yi damaa dem nduk diggante bitiku xayri ak ak armel yi. yoon boobu. boo nga tax ma taxaw foofu di xool mais yoon boobu kenn ñoo fa jaar guddi c'est impossible. te loolu dafa bëri ci dëkk bi. Mhm. donc je lance un appel à la mairie. Mhm. vraiment ñu travailler ci loolu pour que vraiment ñu identifier les zones yi nga xam ne. Mhm. Euh, c'est pas lumineux. ñu mun ko vraiment leeral ba nga xam ne Fatick waaye dañ ci mën a jaar dox seen soxla dans les conditions les meilleures. ak usine biscuit bu fi Macky Sall euh, inauguré woon nañ ko taxawalaat. non usine biscuit bi c'est une autre histoire loolu moom je je reviendrai parce que. centre collecte de lait bi.

Fatick waa am ful ak am fayda yëpp bàyyi dañ Macky Sall et Léon tourner le dos la coalition tak wàllu Sénégal du am dara lolou mom lu leer la parce que mom sabi keur sax fekkente ne maîtriser wa sabi keur kër mhm. gëw di nga maîtriser euh, wa wa dëkk bi mhm. kon ñoni duñu am dara kenn amut ñom yakar euh, parce que nekkoon nañ fi pendant fuk at ak ñaar defuñ fi dara lu extraordinaire appel bi may mujjee lancer mom lay lancer wat parce que euh, la répétition elle est pédagogique mhm. Pastef les patriotes il ñaan ñu gën farlu mhm. la victoire est devant nous et c'est fort possible toutes les conditions sont réunies pour que Pastef puisse gagner au soir du 17 novembre 2024 te loolu mhm. donc je remercie remercier tout le monde di remercier encore une fois la section communale et l'ensemble du comité électoral euh, communal sous la conduite de Cheikh Bitaï, le coordonnateur Euh, no APR moom euh, c'est pas un parti. <laughs> non dama dégg léegi nga wax ne ba nga ñëwee ñoom siisuñu. non non non non ça ça c'est ça aussi am na ku fi toog fii ne ñoom ñoom maanaam euh, APR yaa ñoom yaataluñu duñu xëcc nit. Euh, non non non loolu constat la mais ça dépend ci nit ki rek. man vraiment mënuma reprocher dara waa Pastef parce que aussi man dama bokkoon ci parti bu tudd APR di défendre Macky Sall. Mm-hmm. donc Macky Sall nekkatu fi. ñoom c'est normal que ñu gis samay vidéo yoo xam ne dama ci doon dama ci doon défendre waaw donc loolu loolu rek ñu doon wane parce que ak yi ko doon wax dara Sonko aussi boo nekkee ci loolu rek les yi ñu ma doon wan mm. les VAR ça traduit nettement mon engagement politique dans mm. le parti nekkoon donc loolu kese la mais du leneen mais xam naa ne Euh, subirna naa mhm. parce que c'est ça aussi la politique. mais mais tu la politique. Euh, mais encaissé question ko te comprendre mal aussi boy yi ma comprendre naa comprends. mal mhm. mais lui aussi moi Ousmane Sonko a amnistié tous les gens qui l'ont attaqué à l'époque c'est mhm. aussi c'est la vérité. c'est lui qui l'a dit ça c'est la position historique de de passef mhm. képp koo xam ne sa loxo mosul takk dara yoraloo kenn dara tooñoo kenn am nga droit ñëw passef tey rek waxat na ko ci ci ci mhm. discours bi. Mhm. ba booy donc amoo problème intégration. parce que li ma li ci gën a am solo mooy. kilifa passef yi ils m'ont accueilli ils m'ont adopté. donc man am problème pour intégrer PASSEF Fatigue. te dinaa la wan ne man ci laa bokk je suis avec vous et je serai avec vous personne ne peut me détruire personne ne peut détourner mes commissions.

sëy ba tas ci diggante mom ak APR tay mi and ak wa parti Pastef di liggéey ak ñom bokki yi ngeen jëf ñuy jox ñëpp rendez-vous ci yenen jataay ci verdict éducation sur Sine TV santé sur Sine TV l'actualité sur Sine TV politique sur Sine TV sport sur Sine TV Religion sur Sine TV culture sur Sin TV c'est un par TV